Jungle. asalaamaaleykum mbokku Sénégal yi ci biir réew mi ak yi ci bitim réew tey jii maa ñëwaat di waxtaan ak yéen ci message bi li ko waral nag mooy tolluwaayu feebar bi nga xam ni moom la ñu tuddee Covid 19 bi nga xamante ne ñëw na ci mois de décembre deux mille dix neuf bi ñu génn nekk tey jii feebar bu law ci àdduna bi yëpp ba tuddee ko pandémie waxtu yi may wax ak yéen lu ëpp téeméeri réew ak ñeent fukk te Sénégal ci la bokk feebar bi yegsi na fa. lu ëpp ñetti téeméer ak ñeent fukki junni si ay doomu aadama. tey jii feebar bi dugg na seen yaram lim bi ëpp na loolu sax li mooy li nga xam ne testé nañ ko feebar bi ba tey jii ci àdduna bi faat na lu ëpp fukki junni ak juróom ci doomu aadama kon muy feebar bu doy waar te doomu jàngoro bi nga xam ni moo waral feebar boobu doomu jàngoro bu tuuti la ba ñu mënula gis ak bët te yëngal na àdduna doomu jàngoro la boo xam ne it seetul ku am kàttan walla ku ñàkk kàttan seetul réew mu am doole wala réew mu amul doole seetul borom barke wala ku néew doole yëngal na jamono ba tax na depuis lu toll ci ñetti weer adduna bi yépp ngi xeex te amalaguñ ko ab paj waxtu wi ñuy wax feebar bi amagul benn garab boo xam ne mën nañ ne lii moo koy faj boroom xam-xam yaa ngi waxtaan docteur yaa ngi waxtaan waaye daal li mën a defagum mooy la muy àndal feebar bi la muy indi ci ay màndarga dinañ faj màndarga yooyu kon Sénégal nag boobu ba léegi desul ginnaaw si xare boobu ñu ngi ñaanal ñi nga xam ne feebar bi yegg na si ñoom fii ci biir réew mi ak ci àdduna bi yëpp di ñaan yàlla ñu wér ak jàmm docteur yaa ngi si guddi ak bëccëg maa ngi encouragé tam ministère de la santé ak bu action sociale ministre bi ak mboole mi waa kër yi nga xam ni guddi ak bëccëg ñu ngi taxaw si di jàppale askan wi ngir delloo ginnaaw feebar boobule maa ngi itam di gërëm force de défense et de sécurité yi nga xam ne ñoom ñëpp taxaw nañu ngir indi seen wàll ci xare bi di gërëm itam doomu Sénégal yi nga xam ne ñoom ñëpp tey jii nekk nañ ay volontaire di indi seen i ndimbal pour que Sénégal mën a gagné xeex boobu ñu ñu tàmbali te di ko jëmale ci Covid 19. waaye balaa may sori dinaa sant bu baax askanu Sénégal. bi ñu tàmbalee xeex bi ba tey muy kilifa diine yi muy kilifa aada yi citoyen kilifa politique yu opposition comme yu majorité citoyen de façon générale ñëpp taxaw nañu ngir ànd ci xeex boobu ngir delloo ko ginnaaw motuwaay yu bëree bëree jël nañ ko depuis bi ñu amee feebar bi fii ci biir Sénégal ci weeru mars le 2 mars bi ñu génn dañu naan nag fagaru moo gën faju moo tax lépp lu ñu jëloon ci ay dogal ah tax na ba tey jii mënuñ wax ne feebar bi dellu na ginnaaw dafa gën a jëm kanam ndax boo leen di seetlu le 2 mars lañu njëkk a am cas bi fi ñëw si senegal jóge bitim réew noonu waxtu wi may wax ak yéen tey jii lu toll si junniy nit ak juróomi téeméer ak juróom benn fukk ak benn nekk nañu ñu ñu nekkoon ak ku am feebar bi ñooñu nag ñu ngi leen di fas yéene dugal ci ay hôtel ngir ñu bañ leen bàyyi rek ñu dem ci kër yi ak di wàll ñeneen loolu li muy wone mooy war nañu fexe ba ñu limiter dem bi ak dëkk bi ndax ginnaaw jàngoro bi amagul lu koy faj li ñu mën def rek mooy fexe ba mu bañ a yaatu ndax bu yaatoo ak ni muy wàllee dana dem ba kenn dootu ko attan mu daal di nekk musiba gu rëy goo xam ne dinañu jaaxal te ñu dépassé ndax réew yu bare bare yu ëpp doole fuuf senegal ci wàllu koom ak ci wàllu ay euh, moyen yu kër docteur tey jii feebar bi dem na ba jaaxal leen ba tax na am na si ay réewu jullit yu nga xam ne ñi faatu lim bi bëri na bëri boo xam ne daanaka lañ leen war a defal bu nit bàyyeekoo dellu ci boromam mënatuñ ko def ndax feebar bi ak wàll bi nga xam ne mën na di ko wàlle loolu télévision yëpp wane nañ ko yeneen i réew ci tugal ñoom daanaka armée bi ci boppam ndax faatu yi bëri na bëri goo xam ne daanaka ñoo yóbbu cercueil yi ñu daldi leen lakk kon loolu musiba la bu ñu ñaanul yàlla si àdduna mu yegg si suñu réew loolu nag moo tax yéen mbokk Sénégal sukkandiku si constitution réew mi ci article bi wax article 69 ak ci loi bi ñu jël ci atum 1969 muy loi 69 29 bi nga xam ni moom mooy wane bu jamono méttee wala njaaxle am walla jafe-jafe dem ba bëgg ëpp loxo président de la république mën na déclarer état d'urgence moo waral tey jii ma déclarer état d'urgence jël décret ngir Sénégal diir rek fii ak jëmmi jamono état d'urgence boobu danañ ko doxal buñ koy doxal nag dana jox gouvernement bi ay jumtukaay yeneen yuy tax dinañu mën a wàññi dem bi ak dikk bi ci diggante région yi dinañ sax mën def li ñuy wax couvre-feu ñi nga xam ne ñoo yor kaaraange réew mi dinañu dox guddi maanaam bu ko huit si ngoon ba six heures si si suba maanaam guddi gi diggante huit si ngoon be six heures si fajar gi ah danañu interdire nit ñi génn ci biti loolu yëpp dañ koy def nag ngir bu ba jegee itam même bu doon naam nit ñi danañ dox soxla yi ñu war a dem marché dem marché ñu war a daan seen doole daan seen doole waaye ñu def ko it ci anam bu nga xam ne dana moytu euh, daje bu ëpp bi ak euh, maanaam rassemblement yu bari yi loolu mooy li nga xam ne moo ñu mën a fagar xam naa ni feebar bi indi na ay gàllankoor yu bare gàllankoor yooyu nag dem na ci koom dem ci entreprise yi dem ci suñu doom yi nekk bitim réew ñu tudde leen diaspora looloo waral ma jël ay matukaay yu am solo yoo xam ni euh, benn dinaa jël lu toll si juróom fukki milliards def ko ci njëndum lu mel nu ceeb wala diwlin ak suukar ci meew jàppale ko askan wi ci jamono ji ñu nekk loo xam ne dinañ ko tàmbali fii ak semaine bii di ñëw mu nekk action bu gaaw boo xam ne dina law ci biir Sénégal waaye itam taxawal naa benn fon boo xam ni dañ ko tuddee fonds bi xeex jàngoro ji ak li nga xam ne mooy jafe-jafe yi jàngoro bi indi jëmale ko ci koom-koomu réew mi fonds boobu nag ak li nga xam ne situation Covid 19 andi na ko ci réew mi toll na si junni ay milliards boo koy xool budget bi boo ko xaajee ñeent benn xaaj bi la junni milliards lañu fas yéene mobiliser pour jàppale entreprise yi fexe ba liggéey ñu bañ ko yàq ba kenn bañ a ñàkk liggéeyam ci ndax situation bi ndax xam ngeen ne lu bëri tëj na aéroport yi tëj nañu hôtel yi tëj nañu restaurant yi lu bare bare ñii ñi nga xam ne aussi dañuy def ay spectacle ñu bare bare am nañu tolof tolof ci seeni activité donc fonds boobu li tax mu jóg mooy mu jàppale koom-koomu réew mi jàppale secteur yooyu la dinañ jàppale itam suñu mbokk diaspora ndax ñoom ñoo daan liggéey di yónnee réew yu bari tey ji kenn liggéeyatul kenn génnatul sax ci biti kon daañu jàppale njaboot gi mooy la ma wax ci dund gi waaye itam daañu jàppale waa diaspora bi danañu xool ministère des affaires étrangères nu muy liggéey ak ambassades yi ak consulat yi jaar si daara yi jaar si daayira yi ak si association villageoise yi ak ci ni nga xam ne ñoom noonu la ñu toogee ci jaspora bi ngir ñu indil leen ay ndimbal ci wàllu ndimbal ba tey xam nañu ne entreprise yi amaloon nañu nguur gi lu bare bare ci wàllu impôt ba tax na impôt yi ñu jàll atum deux mille dix neuf waroon ko fay jamono ji lu toll si ñaar téeméeri milliards si suñu koppar ñun nguur gi dana ko teggi entreprise yi ndax ñoom itam situation bi nga xam ne dal na leen ci wàllu feebar bi li euh, presse bi tam bokk na si secteur yi nga xam ne euh, mbir mi laal na leen ba tax ñoom it dinañu xool si yan anam lañ leen di mën a jàppale ngir seeni liggéey bañ a am jafe-jafe. bu loolu weesoo sama mbokk Sénégal maa ngi fàttali ni jàng doomu jàngoro bii du doxal boppam di dem fu mu dem rek doomu aadama moo ko fa yóbbu tey jii maanaam nit moo am jàngoro bi ci biir yaramam mu xam ko walla mu ñàkk ko xam mu toog ak ki mbokkam toog ak ki xaritam toog ak ki ñu muy àndal di liggéey walla leen ko moo tax ñu ne ginnaaw amaguñu garab gi faj li ñu mën def mooy wàññi yaatuwaayu feebar bi wàññi itam dox bi ak dajaloo bi lii moo waral ñu ne nañu limité te loolu àdduna bi yëpp noonu lañu ñu xeexee ndax boo ko defulee dana jéggi dayoo te bu jéggee dayoo kenn xamul situation bi te foogoon nañ sax ne du yegg si Afrique waaye tey gis ngeen ne feebar bi mu ngi biir Afrique foogoon nañ ne du rey waa Afrique tey jii doomu Afrique yi ñuul ñu ngi faatu si feebar bi kon nag nañu fagaru te organisation mondiale de la santé nee na bu ñu naagu wala yaakaar ne ku nekk ndaw feebar bi du la laal kon daal maa ngi ñaan ñëpp ñu yokk suñu fagaru fexe itam doomu jàngoro bi moom ñu yemale ko xeex ko ci niñ koy faje fexe be bu ñu respecté lii ñu wax ci dem bi ak dikk bi te état d'urgence bi dinañu si jàppale bu baax a baax am nañu yaakaar te ñu ngi ñaan di ñaan kilifa diine yëpp ñaanal ñu ci loolu suñu doxalee nii ñu ko waxee yàlla mën nañoo musal ci bi jàngoro kon nag maa ngi ñaanaat kenn ku nekk ci ñun muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw muy kilifa diine kilifa aada kilifa bu mu mënti doon nañu ñun ñëpp ñu jóg takku ngir ñu xeex jàngoro Covid 19 ngir sauver suñu réew sauver suñu njaboot sauver suñu askan sauver itam askanu doomu Adama lii moo doon ci gàttal kàddu yi ma bëggoon yëkkati jëmale ko ci yéen di ñaan yàlla génne fii bii musiba ak bala ci Sénégal génne ko ci àdduna bi yëpp maa ngi leen di sant. di leen gërëm.